te ñaar yooyu ay digg lañ bés bu digg yooyu daanoo buñ ko ñaan yàlla moom mais bés bu daanoo te li ko tere daanu tuuti la du du du ñu jik ñun ñii donc euh, yooyu yëpp dafa ne yoo xam ne war nañ koo war nañ koo waxtaane te crise yi dafa nekk ay crise yu compliqué yu complexe Euh, crise ay ay crise politique crise démocratique crise de la gouvernance crise de la sécurité yooyu yëpp moo booloo mën naa ni sax crise géopolitique <laughs> yooyu du fekkee ne ñun tooguñu waxtaane ko ba pare ñun ci suñu bopp ñu nekk bloc xam nga président dafa dem euh, <laughs> G20 mu ne dama bëgg Union africaine bokk G20 mais c'est bien mais tout de même am na réew moo xam ne bii dafa dafa war a bokk d'office G20 muy Nigéria lu tax Nigéria bokkul g xam nga problème mu leadership en Afrique dafa am leadership rek moo manqué pour que Nigéria dem bokk G20 c'est une petite puissance régionale parce que Nigéria moo jiitu Afrique du Sud te Afrique du Sud da ma nga g donc question yooyu ce sont des questions géopolitiques yoo xam ne war nañu ko poser pour xool naka lay Afrique moom ci boppam par rapport au bloc occidental par rapport au bloc boo xam ne mun nañ ne euh, russo-asiatique Afrique am blocam buñ ñu koy tirer à droite wala di ko tirer à gauche te loolu lu am solo la te Sénégal nga xam ni quand même sur le plan géopolitique am na travail boo xam ne travail de base boo xam ne kenn amu ko euh, man nii bi ma demee Gorée dem xool ci biir musée bi ma xool ni Vasco da Gama jaar na fi <laughs> Américo del Kii jaar na jaar na Gorée ma ne attention ñun bi ñu duggee ci mondialisation yàgg na donc Sénégal réew bu yàgg la waaw léegi réew bu am expérience la bu mu xeeb boppam ba di wàcce boppam ci ay ay affaires yoo xam ne euh, vraiment day dox ba ci football bi sax réew bu mag lañ tey. alors bu bu ñu desee ci ci espace politique bi ba léegi ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy la présidentielle de 2024 xam nañ ne li ci des bëriwul président Macky Sall daanaka. ñu bëri jàpp nañ ne war na mën a joxe position de manière très claire ci loolu nga xamante ne moom mooy candidature am am na ñu ko dutee deuxième quinquennat ñi tuddee ko troisième candidature c'est selon mais gis nañ ci say tweet yi ngay faral di def ngay wax ne war nañ dem ci transition négociée président Macky Sall dem rencontrer yeneen euh, mouvement yi fi ne yeneen parti politique yi ndax loolu mën na nekk. waa xam nga il faut ñu liggéey ko tam parce que gis bu ñu demee nekk ci ay xat ñu seet nan la ñuy génne ci xat-xat yi ba pare woon yoon parce que booy xool euh, avenir nga xool tey mu def projection fii ak 2024 mënoo ko def. mais transition négociée lan nga ci bëgg a wax concrètement maanaam euh, transition négociée mooy fi mu ne dafa am ay li ma lay doon wax déjà ci monde bi di mu changé benn la ñaar Sénégal dafa changé dina changé ak pétrole bi ak gaz bi. pétrole bi ay gaz bi dina indi ay pression interne ak ay pression externe yoo xam ne yu am doole la donc yooyu fi ñu jëm ni dañ suñu démocratie bi ak ni mu doxee ak tension yi am ak fu ñu am élection mu am xeex manifestation yi am xuloo ñi ñi jóg marabu yu jóg donc il faut ñu mun a quand toog waxtaan pour am une vision à long terme ci Sénégal bu bees bi nga xam ne moom lañ bëgg parce que àddina bi euh, chinois yi dañuy waxtaan beesal nañ seen yëf euh, européens yi ñoom ci seen bopp li tax del ñu dellu ginnaaw nekkuñu di bat mais xam nañ am am nañ une capacité critique xoolaat seen bopp ba pare génn ay perspectives ñun tam il faut ñu def ko génn ay perspectives mais perspectives yooyu pour mu génn il faut ñu génn ci ay débats yoo xam ne amul njëriñ. mooy ban débat par exemple. troisième mandat amul njëriñ c'est un débat stérile gisuma lan la ñuy jural waaw. ak aussi Adji Sarr Sonko amul njëriñ foofu sax d'accord naa fa ak Bouba Ndour il faut ñu génn ci affaire u Adji Sarr Sonko bi rapidement. mais troisième troisième mandat Alioune Tine nga baal ma buñ ci waxul ba président dem ci troisième mandat est-ce que tamit du du luy yee fitna boo xoolee opposition bi nu mu jëlee question boobu actuellement. troisième mandat day yee fitna kooku ñëpp xam nañ ko man ci ba sama bopp xam naa ko. mais boo nee boo nee amul njëriñ est que loolu tamit du indi ay lënt-lënt ci xelu nit waratuñu toog di waxtaan waxtaanu troisième mandat fi Sénégal toll ak fi ñu jaar waaw waratu ñu toog di ko waxtaan leneen lañu war a waxtaanee te en réalité boo fi nekkee di toog di waxtaan affaire troisième mandat doo am une vision boo xam ne prospective euh, sur la longue durée te loolu lañu war a am mënuñu toujours nga xam ne ñun suñu vision élection rek lay yem nan lañ koy gañee ak nan la ñuy débrouiller pour gérer ak toog ak nan la ñuy débrouiller pour gagner ko jël nguur gi. mais vision bu mel noonu du tax pays développé il faut ñu dépasser vision boobu en réalité loolu moo tax ñu naan nañu indi une transition négociée xam nga léeg-léeg da toog ba crise am ngay doog am transition mais mun nga anticiper ci crise c'est-à-dire il faut ñu anticiper ci 2024 parce que 2024 en ce moment presque benn espèce su écran noir la kenn mënul wax 2024 naka lay mel mais teel la waxtaanee 2024 pour ñu dem ci ay élections apaisées. mais lu koy yombal est-ce que bokkul ci président tamit euh, wane position ci mbir moomu li nga xamante ne le temps soit peu que opposition bi laaj. ko kay bés bu dem wax ko ko. <laughs> bu ko deful tamit euh, mën na indi problème. am naa ne daal euh, ñin ñaa ngi xaar 31 décembre pour mu wax fan la fan la jëm ak naka la jëmee parce que sooy seetlu même ci biir APR ñii dañ naan ah président mooy suñu candidat ci ëllëg si biir que nga gis ko ne ah président waxagul dara. ci ëpp jamono ji ñu bëri valide nañ si APR ci seen bopp amaguñu benn position ñun nan lañ mën a wax fi mu ne nii président rek moo mën a yeewi ñin temps yi li ci ëpp nag dañuy dégg ne ñoom Macky mooy sunu candidat validé nañ ko li ci ëpp ba ci biir assemblée dañ ko fay wax. waaw ñii nii dañuy ñu ngi wax li ñuy wax Macky waxagul mais am na ñoo xam ne toujours tamit dañuy weddi ce qui veut dire que ci biir seen biir propre parti réglé gu ñu problème boobu ci seen propre parti ñoom donc problème mu troisième mandat. waruñu toog di ko wax waxtaane waruñu toog di waxtaane waxu troisième mandat delt ginnaaw la ci Sénégal waaw ci sama gis-gis delt ginnaaw la waratuñu toog di waxtu wax waxu troisième mandat amul problème bi sax tu problème boo xam ne euh, problème bu juridique la wala problème mu institutionnel la léeg-léeg day am la morale publique day am la parole donnée c'est imp c'est extrêmement important et puis à un certain niveau dafa am importance du du du du loolu euh, day tax nit ñi di gëm politique di gëm acteur politique yi mooy comme ñi ne man duma ma def naka mu tudd cumul de mandat nga yeewu suba nga doog commission di cumul ñu wax nga naan amul loi amul li déedéet am na ay loi yoo xam ne ñoo ëpp doole am na ay ay ay ay ay naka laa la wax ay ay pratique ay éthique ak ay morale yoo xam ne moo ëpp doole loi maanaam bu fekkee ne leader la nga nekk benn kii nga wax sa kaddu parce que kaddu boobu mooy tax politique am sens moo tax politique am dignité moo tax politique am noblesse waaw maanaam nit ki boo ko kiyee mu am charisme wax ne lii laay def mu def ko loolu dafa am dafa am doole day tax ñun ñi gëm politique gëm leader politique yi mais bu ñu demee ba nga xam ne bu ñu nee ñoom ñëpp benn la day indi ay situation yoo xam ne boo demee Guinée moom la boo demee Mali moom la parce que dañuy dem ba mu yàgg ñu ne waaw ñun bu ñu naree kii est-ce que dañ koy joxaat ñii xam nga loolu moo nekk ci seen bopp yi bu crise amee ñu ne est-ce dañ koy joxaat ñi te ci sama gis-gis Sénégal ba tey am na am na encore euh, benn lumière boo xam ne mu ngi fii briller lumière boobu bu ko kenn fay. très bien am na bii mooy doon laaj gu mu